affaire yi dama bëggoon ñëw pour vraiment leeral nit ñi parce que affaire bu ndaw la woon boo xam ne c'était interne à notre parti à la coalition mais comme observateur da ko génne il faut ñu leeral nit ñi ni que histoire bu ndaw la woon parce que ci élection yi bi ñu dajale conseils yi bi ñu waree ba pare ak ñaari candidats yi dajalee conseil yi wax leen ñoom ñëpp ni que choix bi choix au président de la république ñu indi ko bon ñu joxe woon aussi xaalis tuuti xaalis deux millions à raison de cent mille par par par par par collectivité locale pour ñu jox ko parce que président dafa génne benn circulaire daal ni maire yi ñoo koy représenté maire yi ak président président kii de de de conseil départemental ñoom ñoo koy représenté ci ci politiquement donc bu amee lu ñuy joxe ñoom lañ koy jox comme vote bi c'est un vote bi ñuy wax un vote de gros électeur de grand électeur parce que vote conseiller la donc moo tax ñu ne woon nañ ko jox maire yi nga xam ne ñoo maîtriser seen conseil municipal lañ leen jox ku nekk cent mille francs pour ñu indi nit ñi pour transport pour assurer parce que am na ñoo xam ne boo leen assurer transport dañ naan xëy na man élection yi intéressé du ma assurer transport du ma ñëw pour c'était assurer transport léegi kooku boo koy joxee koo koy jox maire nga koy jox parce que maire moo am ay conseiller municipal mooy le président du conseil municipal donc maire nga koy jox bu ko joxee maire mu jël mu paas indi leen léegi nag ñu jox ko Juba Mbay moo doon maire Pekes Pape Dieng sama maam maire fële ñëw di agressé nit ñi il est venu avec neuf neuf neuf parce que ñu mu àndaloon du ñu ay conseil ñëw ñëwoon pour voter il est vendu avec il est venu avec neuf nervis ñëw élever la voix il m'a même menacé de mort mais vraiment man comme damaa respecté président Macky Sall ma ni président Macky Sall du ma ko coow ci élection yi nga xam ne boo nekkee xam nga labbiliwu fas taxula fasa law fasa nga ci kanam président Macky Sall dafa raw ñëpp ànd ak ay nit raw leen don on homme de paix raw nit ñi bët raw leen labli leen gagné leen présidentielle gagné leen législative gagné leen local gagné leen référendum donc dama koy yàqal élection bi man maa war a eh, ñaar ñi ngi mu tànn maa leen wax ni président moo leen tànn ñu ñoo wër collectivité locale yëpp fu ñu dem rencontrer le maire ba ak conseil yi ni leen lii et bu leen science ni ñii ñooy candidat ñii candidat mooy président Macky Sall parce que président Macky Sall moo leen tànn moo leen tànn ñoom ñëpp ñu d'accord ci mu ñëw ñoom bi ñu demee bi ñu demee Pekes fekkuñu ko fa fekkuñu ko fa jabaram dafa nekkoon mais nekku fa woon sax Pekes dañ ko woo téléphone ne ko jaar nañ fi pour wax leen ni que vraiment lii président Macky Sall moo ko tànn pour ñu ñëpp ngeen voté donc bu ñu jógee foofu ñëw di voté si bon il m'a interpellé ci ci kii lieu de vote bi ma ne ko non maam lii cent mille francs rek jox nañ ko maire bi ma def ni bi jeex na ma dem sama kër parce que il commençait à élever la ma dem sama kër mu ñëw fa fekk ma fa ak neuf nervi heureusement y avait des témoins y le maire Magueye Ndiaye le maire Bara Ndiaye y avait Serigne Sall de Koul y am na beneen maire amoon na ak beaucoup de conseil municipal parce que gars yi bi ñu wotee pare dañu ñëw añ sama kër léegi bi mu ñëwee di commencer di élever la voix di wax di menacer de mort dama lay jaay sama bakkan bëlelël yaa ma bëgg a xeex parce que cent mille francs yi da nga jox jiboo ma ne ko mais Benno Bokk Yaakaar ku fa nekk maire on bu fa PS wala PDS wala kenn ku bokk ci ñun bu fa PS nekkee maire te bu ñu bi bi mu yónnee bi mu yónnee euh, Amadou Mansour Faye bi ñu ko yónnee xam nga président dafa yónnee ay délégation bi ñu ko yónnee moom ci boppam ñëw na Djiba Mbaye ma nga fa woon ñëw ku ñëw yónnee président recevoir la nga ne ko da nga koy jàppale ñu dem seeti ko mu ni dinaa leen jàppale mais bu amee xaalis bi ñu jox moom lañ koy jox mu indi transport loolu rek mu indi mu indi kii moom nag mu mer loolu parce que day wax ni euh, ci dëkk kaw yi ku ni président Macky Sall man la yónnee xaalis boo ko wonee rek dañuy nit ñi nit ñi da ngay am lu bari parce que nguur moom boo koy représenté da ngay am un truc li ñuy wax un truc favorable ci élection parce que toujours Macky Sall président Macky Sall foo ko yóbbu rek da ngay gagné parce que moom dafa mës a gagné waaw donc loolu moom mu mer ci il a menacé de mort dafa dafa dafa wax ni daf may jaay bakkanam dafa may jaay bakkanam il a la voix di xastaate lu nekk mu def ko ma ne ko nag yow yaa des ay xas ñu dese gu ñu xas ñun dañuy mobiliser pour liggéey derrière président Macky Sall président Macky mi nga xam ni dafa xam problème nit ñi dem quarante mille kilomètres moom la daw daa di visiter quatre cent village ñu wax ko ñu wax ko coono nit ñi mu ni leen dinaa nekk président pour wàññi seen i coono mu nekk ci. nekk ci def ak def lu rëy li nga xam ne moom la def Tivaouane luñ ko indil benn wax à Tivaouane donc ñun dañuy rectifier sax man maa ni ko maam may ma ma toog may ma bi mu toogee foofu ma dem wooyu police pour police génne ko foofu parce que moo ko génne wuloon foofu gars yi dañ koy dóor ils étaient prêts à se te même maire bi muy wax même même maire bi muy wax Djiba Mbaye ponkal la da ko naroon duma duma yu metti ma ne ci sama maam la duma ma bàyyi ñu koy duma ma woo police pour ñu jël ko foofu même pour bañ police mënate ko parce que mag la sama maam la pour suturaal ko damaa woo sama sœur ni ko wax leen wax leen sama maam Pape Dieng mu jóge ci kër gi ba histoire yi bala ko police fa fekk di ko mënate mhm. ci la jóge daw vraiment man xaw ma sax ma woote na am déet parce que sérieusement noonu la jóge daw te moom vraiment ñi muy wax nag xëy na am na ay conseillers suñuy conseil ñun ñu voté euh, PDS am na parce que PDS Euh, am na plus de trente trente cinq conseillers yoo xam ne dañ leen dem voté te ñun ñu nekk mais teewul dañu gagné largement parce que gagné politique gagné gagné rek la c'est zéro ou un ci gañ raw gàddu la ñun rawee nañu ñaari liste yi liste PDS ak liste FADA rawee nañ leen trois cent huit voix dans ce département donc on a gagné largement on a gagné largement gis nga euh, Dakar waa ji tuuti voix la ko gagné mais gagné na gagné gagné la amul gagné bu ndaw a gagné gagné daal mooy gagné moom la ñu président Macky Sall sant dem leen gagné seen dëkk yi bu ngeen bëggee parce que man damay gañe bu ngeen bëggee ma jox leen importance moom nag fekkee dañ ko gagné ku ñu gagné nag ku sa maire gagné nag maire bàyyi patron léegi. moom dem na bay contesté seen leadership ni yow doo contre. mais dama dama leadership man joxuma hmm. parce que man en tant que ministre man lañ doon bu amee ay moyens yu coalition bi di dégagé man lañ koy jox mu ñëw coalition bi nga xam ni euh, Mame Bounama Sall moo ko jiite fii PS. moom moo moo jiite PS fii man lay waxal yeneen parti yëpp yi fa nekk AFP man la ñuy waxal parti yëpp man la ñuy waxal ba pare man la ñuy jox moyens yi ma koy indi di waxtaan ak ñii maire yi nga xam ni moom la président dafa def circulaire dénk leen politique bi au niveau local moo waxtaan ak ñoom donc moom loolu bu ko bañee mais président Macky Sall lay bañal bu ko bañee aussi population bi lay bañal parce que man bëgguma xam nga politique kenn du wax maa la jiite politique kenn mënul wax yee kaa leen ma kaa leen ma jiite leen politique da ngay toog bañ la kaay jiite ñu. Mhm. man nag loolu moom ma daal damaa toog ñu ñu ñu am AG maire yi ñëw sama kër ñu dem réunir bi ñu réunir y avait y avait quatorze maires ñoom ñëpp ñu ne ma yow ñu dañu bëgg organiser partie bi léegi comme yow yaay ministre yow la ñuy def coordonnateur provisoire organiser nañ nag comme département bi quatre arrondissement la. arrondissement bu ne ngay laaj kenn ngay jëf leen adjoint nga organiser nga def une équipe bi nga xam ne dañuy animer parti bi bañ ne léegi chaque mois dañuy def benn activité ci benn benn collectivité bu bees après man leen non mais yéen ñëg il est vrai que maire ngeen mais bu ngeen ko defee fii day indi problème AG ba bu fekkee loolu ngeen gëm comme am na AG bu ñu AG da ngeen koy da ngeen koy proposer ñu voté ko bi ñu demee AG ñu proposé ko ñu voté ko parce que yéen yéen nga fa ñ ñu voté ko à l'unanimité voté ko ñëpp ñëpp ñëpp voté ni man maay coordonnateur du département et eh, loolu c'est politique c'est politique parce que AG la ku ko bëgg a dindi da ngay voté waat AG boo voté AG man ci je suis minoritaire man toppe dëgg ñu naan ku dul toppe kenn dul topp damaa yàgg toppe moo tax léegi ni ñu may topp damaa yàgg toppe moo tax ñu may topp bu bëri dégg naa aussi ñu naan way way fii laa ko fekkoon premier tour man maa ko jëkk ci APR APR man maa ko ci jëkk laaj leen militants yi APR man maa ko ci jëkk élection yi fi def yëpp maa doon tëdd liste département majoritaire di tëdd liste euh, euh, commune bi majoritaire yëpp maa ko gagné et largement boo ko gagné largement nag vraiment dañ la war a jox sa gëdd parce que rewante bu am il faut mu jël ku jël gis nen ni nena ngi léegi ñoom euh, militants yi ñoo gis nen ni nena ngi ni kii la ñu bëgg mu jiite ñu parce que il est courageux il est sobre il est intègre et il est juste loolu muy muy ay jikko yi nga xam ni ci président Macky Sall laa ko jëlee mm-hmm. waaw koo xam ne il n'est pas sobre di ñëw di jaay nit ñi ay buur te buur bi wax jeng kenn déggul musul jeng jeng buur bu sant jeng ci Kajoor kii lañ ci xam euh, buur euh, Fall lañ ci xam bi Fall jógee ñu jëf par de par sa mère la jot jot de par par son mu nekk mu nekk mu nekk euh, damel di Kajoor bi ñu fi jógee ñetti chef de ñetti ñu tas. Euh, ñu tas Kajoor def ko ñetti canton ñetti canton yi ñu def yëpp samay maama fa nekkoon maa fa nekkoon eh, ñoo fa nekkoon chef de canton man bu ma revendiquer buur moom du revendiquer buur et deuxièmement moom yaayam Sall la sant moo tax mu doon sama maam mais mënoo revendiquer man mi nga xam dama cee taq rëpp mm-hmm. yaay Sall baay Sall bu ma ko revendiquer moom waru ko revendiquer ah <laughs>